mën nañoo xam naka nga tudd ak foo jógee. Serigne Mboup laa tudd maay président chambre de commerce bu Kaolack et en même temps président union des chambres de commerce ak groupe CCBM. luy woon sa tànk tey bi ak si foire bi. waaw bi mooy dañuy ñëw ci foire bi xam nga bi ak Sénégal benn dëkk la euh, njaboot bi jaxasoo na euh, koom bi jaxasoo na tey ñi ñëw ci. invitation président Diagana ak Alioune Seck ñu ñëw fi tamit fekk fi suñu xarit taf ak tamit Fatou ah, andi tamit ay exposants yu jóge Sénégal ñëw indi fi ay produits Sénégal yow boo ñëwee tey si foire bi bi nga gisee taf lim def nii lan nga si lan nga si gis daal ak loo si war a mun a wax mu nekk doomi Gambia di def liggéey bu mel nii liggéey bu rafet bu demee nii léegi yow lan nga koy boo amoon loo koy wax daal lan nga koy wax ak lay wax Gambien yi pour ñu jàpp si liggéeyam. waaw xam nga taf euh, lii du lu bees euh, lii yaakaar naa ku génne woon li taf génne lépp def euh, danañ ci gën a gën a gën a kontaan ndax lim def Nigeria, lim def Gambie liggéey la boo xam ne nii ay ay ati at mi koy def. kon munuñ lu dul félicité ko euh, wax ne euh, Gambien yi nañ jéem a jàppale seeni doom yi nga xam ne nii ñoo fi investir ndax gërëm gi dëgg génnul gaal bi ndax amul kenn ku mën a jóge bitim réew ku mën a def li taf di def kon loolu dafa nekk loo xam ne nii dama ko ci félicité di ñaan autorité Gambie yi tamit ñu jàpp ci Gambien yi nga xam ne nii def nañ fi dara ànd ak ñoom liggéey moo gën foofu ñu dem wuti ñeneen ñu bees. sa kàddu gu mujj rek lan ngay wax government ni Gambia ak taxawaayu Gambia ak Sénégal. mooy eh, félicité Gambie ñaan diggante Sénégal ak Gambie ni xolu population bi mel suñ xolu gouvernement yi mel ko ba dem beeg dikk bi yomb jaxasoo bi yomb kenn ku ne yëg sa bopp ci sa morom jërë ngeen jëf. jërëjëf.